di xam xamle it ni ma ko waxee rek mi ngi masawu nii ci bakkan yu bari yi nga xam ne wàññiku na waaye loolu lépp ci coobare suñu borom la ndax wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal ju'i am naqsin min al amwali wal si da ko cee boole lii nga xam ne moo fi xew di mbënd mi itam nga xam ne ñu bari génn dañ seen kër sëriñ bi diis na ci moom ndax bu sañoon képp ku gàddaayee sa kër maam ngir bëgg ak mucc ak rawukaay ak foo jaamu yàlla bu soñoon boo dikkee da nga fi fekk lu gën la nga fa bàyyi te yéeg na ne coono yi metti na ci nit ñi ndax am na ci ñoo génn nañ seeni kër te kii nit ki génn këram ay bagages am yëpp yàqu loolu xam nga ne fa dayalu metti àgg àgg na fa ndax ku ci ne ci sa sa biiru néeg di muy senn képp guddi ga doon nelaw dal na bu yàggu mën mii di wax ak yéen kon boo xalaatee ki nga xam ne dugg na ci biiru saalam dugg ci biiru néegam dugg ci ëttam yàq aw waañam ab dundam jeex loolu metti na ci moom kon sëriñ bi nee na mi ngi ma masawu ñëpp waaye nag nañ xam ne yàlla suñu borom moom lu mu tegu jaam rek dafa gën ci moom te ñëpp a jaaxle woon tiit sëriñ bi wax na ni ñëpp tuub dellu suñ borom ñaan suñu borom sotti ndoxum jàmm ndox nag yàlla moom noonu lay mayee wa yaa qawmi istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursili samaa aleykum idraan wa yasidkum quwwatan ila quwwatikum kon loolu alxuraan la waaye nag Cheikh Abdoul Ahad daa waxoon ne Sëñ nee na yàlla suñ boon de boo ko ñaanee la nga gën a bëgg day seet la nga gën a bañ boole si yaar yëf rek maanaam nag mooy bool leen téye wala nga bool leen sànni kon sëriñ bi nag loolu na ngeen xam ne lam ca war a def def na ko ca ndax sëñ bi lu ne waxtu ne mi ngi xalaat njaboot gi waxtu ne mi ngi xalaat nit ñi bëgg ñëpp ne ci jàmm lii itam lam ca war a def ak war ko caa dox jiitu na sax lii di am ñam ko war a seqal mooy nguur gi fi nekk itam lam ca war a dox ak ñoom ña ngi koy dox te sori na bu demee ba sotti nag sëñ bi baaxoo nag lu agsiwul mu di ko wax ñoom ña ngi xam ña ngi ci seen loxo bu noppee day ñëw leeral ko ñëpp dégg ko waaye sëriñ bi ñaari yi nga xam ne nee na mooy itteem yi ko gën a ñor ginnaaw université bi mooy ndoxum dëkk bi ndax yéeg na ndox mi manqué na ba Cees mooy assainissement bi nee na ñaar mooy ñaari somb yi ko gën a ñor nga xam bu université bi jàllee rek moo ca topp te ma nga ca kam ko seqal di ki jiite réew di président Macky Sall itam fam ca toll lépp mag ca jokk sëñ bi te liggéey ba sori na fu mu ca toll rek bu demee ba war koo leer dana ko ci yar kon nag sëriñ bi nee na moom itam maa ngi ko cee sant di ko ci gërëm ndax yëg na yitteel gi mu ko yitteel ak taxawaay bi mu ca taxaw ba ci lii xew nii démb bi mu ko yéegee joxe ni ndigal ba tey jii ñoom tàmbali na ñëw di manq kër yi ngir bëgg fexe ba tàggale nit ñi ak xat-xat yi ndax xam na ne liggéey bu rëy la boo xam ne ñëpp góorgóorlu lañ ci ndax waa daayira Touba ci kanam sëriñ bi ngi leen di sant di leen gërëm ndax daaw def nañ ci yitte def ci posté def ci taxawaay def ci loo xam ne itam ak njàmbaar la ndax wax naa leen ko daayira bu dajalee ci ay weer yu néew lu ma ñetti milliards loolu bu fekkee maîtrise na ko dégg bariwut kon ñoom la leen waroon lépp matal lañ ko kon sëñ bi sant na leen gërëm na leen fii ñu toll nag xam ngeen ne comme nii moo ko waxee sëñ bi mi ngi cee taxaw ndax amatul jën yitte jurul nit ñi tàggoog lii te balaa diir bu gàttit incha allah sëñ Tuubaa dana ko ci defal feex ba ñëpp xam ne lam ci war a taxawee dana ko leeral boobu ñëpp dégg ko ngeen xam ne état bi tàmbali nañ tey jii lañ ca war def fay moom nag njaboot gi ak njabootam lañ cëpp ku koy def moom ngay dimbale moo tax tey jii yëkkati na juróom fukki million yoo xam ne feeg suba danañ xool ñi nga xam ne ñooy saytu loolu ñu teg ko ci seen loxo yu wóor ba ñi nga xam ne ñañ ca xat-xat ya ñañ ca war a seen kër ñu jàppale leen ci ñañ ca war a dimbali ci dund ñu dimbali leen ci te nee na ab tàmbul la waaye du ci yem ndax nee xam na ne lépp moom la war képp ku ne ci dëkk bi ci tumuranke rek bu soñoon doonee ci tumuranke kon loolu tàmbalee na ko ci tey jii te du ci yem nee na lu mu bari bari ndax nee na wuutaloo ko liggéey bi muy liggéey Sëriñ Tuubaa ci université kon loolu itam bi mu laajee ñu wax ko ne ko ci liñ xaymaagum xëy ne téeméeri kër ëpp ko la nañ ko tàmbalee waaye fu mu fu mu toll ak lu ngeen wax rek dana ko def kon loolu moom itam ñëpp ku ci war a sant gërëm ko ñaal ko ci. ba ca des am na ndigal loo xam ne joxoon na ko Serigne Ousmane mii di ko ko saytuloo ndax li ma leen di wax rek Serigne bi du xaar ba. xeexoo agsi rek muy dóoru jublu ci loolu ndax moo tax man leen wax ji dana gudd ndax da ciy bari yoo xam ne day eh, jaral leeral te waxtu ne amuñu occasion waxtu ne ngay wax bi màggal Tuubaa gi jàllee ci ci weeru gàmmu rek la woo suñu Ousmane woo Abdoulahat Ka woo Moustapha Dieng mi jiite ma rahmati ak sous bi ni ci dëkk bi jiital ci suñu Ousmane mii mu ne ci seen kanam mu di ko saytu di ko taxaw nii muy taxaw liggéeyu màggal gi ngir loole itam lam ci jublu mooy xam na ne li war a régler ndoxum Touba te état bi war koo def ak ségut mu ne kon moom li ko ci war ci diggante bi ci gàttandu nañ fexe ba saafara ko ba mu wàññi ko loolu itam suñu Ousmane ma ngi cee ànd ak ñoom ma ngi cee def ay taxawaay ci biir loolu itam ci la commune bi jëlee engagement bi ñu xoolee la ëpp ca la ko war a defal bokkut ak la état war a def mu tollu ci juróomi téeméeri million ñoom génne nañ ko ba yaakaar naa. xëy na seeni publicité rek def liggéey bi moo ca des waaye génn juróomi téeméer mbir yoo xam ne yoo xam ne commune bi moo ko def. loolee itam sëñ Ousmane biñ ci waxtaanee am na ci loo xam ne joxe na ko digal loolee itam ne ñëpp xam ne ci suñ digal la bàyyi te bu ma nee sama ndigal man awuma kàddu kàddu bi la. mooy bu yoru màggal gi xasee dugg buñ daggate fenn foo xam ne mën na indi gàllankoor ci réseau bi loolu la wax na ko te dana ko gën a leeral ci yeneen i jataay ndax loolu itam bokk na ci li indi li gàllankoor bi ñi nga xam ne ñooy liggéey ci dëkk bi itam muy ñi liggéey ci tali yi ñi liggéey ci ndox mi ñi liggéey ci assainissement bi ñi ci des ñëpp itam bu ñu dikkatee nit ñi yëgoo ak ñoom di yëgoo sous préfet ak préfet bi nekk ci dëkk bi ndax bari loolu itam bokk na ci li indi gàllankoor bi ndax benn service état day jóge fa la ñëw liggéey fii loo ne ay milliards la. te préfet bi fi ne fi yëg ko man yëguma ko man sax bu ma ko yëgoon mën naa bañ am solo waaye ñoom ñi fi nekk état bi xamuñ ko coordination bi day manqué te loolu bokk na ci lii indi gàllankoor ndax 30 bii ñu def ci dëkk bi biñ koy def léeg nga dégg sax nit ñi ne liggéey bi daay yéex te xamuñ ne la ko yeexal mooy 30 bépp dafa romb ay tewo tewo yi nga xam ne forage ci biir dëkk bi la nekk di jox ndox mi ndox mi ci biir dëkk bi bala ñoo mën a dagg fenn nag. faw ñu sakk réseau bi wëlbatiwaat tiwo yi jaarale ko feneen ba mu jaar ñu dóor ko mënatee looloo yéexal ndox mi ak yenn barab yi nga xam ne dañ fa àgg mu doon barab yu bari ndox yoo xam ne amaguñ fa fu ko yóbbu ndax réseau bi dafa fees ndax ñeent yoo xam ne moo war a yóbbu ay ndox lay doon te benn lañ ci defaroon kon loolee itam boo ko yonee lu mu ëtt itam dangay nga la nga defaroon kon loolee itam nañ ci yëgoog ñoom luñ ciy defate ndax liggéey boo xam ne lenn la bu amul coordination liggéey ba na mu war a feeñ du feeñ loolu itam kon ñu ngi ci yi ñëpp ñu gën koo xam